Euh, salaamaaleykum maa ngi tudd Lamine Sall nekk producteur ci commune Panel Wolof ñun lu ñu naqare mooy euh, dañu andil gerte boo nga xam ne ci mois de janvier lañ ko andi te boobu ñun gerte bi ñu bayoon pareeguñu ci donc ñun gerte bi ñu andi dañuy jàpp ne gerte campagne 2022 2023 la bi ñu ko fi andi dañ nañu dañ ko fi dénkaane dañoo toog toog ne ñu ñu gerte bii ñu waxoon ne dañ ko fi dénkaane lañ leen di jox comme semence bon bu fekkente ne commission réceptionnelle ñun yëguñu néew ñu nag amul mais yëguñu léegi li ñu naqari qualité bi am na si mais surtout pois bi ndax ñun dañu jàpp ne état du Sénégal dafa jënd gerte bi ci 1000 francs ak lu lu topp dara nit ñëw bëgg ñu jaay gerte boobu saako boo jël mu manqué ay kilo te loolu ñu saako yi ñu fi jël yëpp dañ ko seetlu ñun loolu moom moo ñu naqari li ñu bëgg nag mooy ñu andil ñu ay bascule gerte bu ñu fiy jël ñu peese ko ba mu mat waaw ñu xool qualité bi ndax baax na te aussi te aussi leneen am na jaaxal nañu tuuti. muy président commission bi nga xam ne sous préfet moom moo fi teg en même temps la même personne moom moo jaayal moom mooy jaay gerte bi dafa naa nag loolu conflit dentre moom am foofu mënoo ne yow yaa toogal askan wi lu baaxul lu baaxul yaa koy wax ba noppi ki fi indi gerteem te mu leer ñu ne gerte gi matul yow yaa ko koy jaayal kon su boobaa su gaañu day am ñun béykat yi ñun ñooy gaañu waaw loolu la amoon lu may wax waaw dañu ne saako boo si jël ñi ko jël nee nañu mën na manqué 6 kilos 4 kilos 3 kilos 1 kilo da si manqué Mm-hmm. Mm-hmm. bon donc je m'appelle Lamine Sal, euh, producteur dans la commune de Panal on euh, au mois de janvier euh, on, nous a amené ici 150 tonnes de semences ce qu'on nous a dit c'est que cette semence là est confiée ici mais à notre grande surprise quand on est arrivé au mois de juin on nous a dit que cette semence là c'est la semence qui sera donnée à la commune et nous avons remarqué que cette semence-là est une semence est une semence de la campagne agricole 2022-2023. Donc la qualité n'y est pas. Aussi, le constat général est que euh, les sacs ne sont pas remplis adéquatement. C'est-à-dire que ce ne sont pas des sacs de 50 kg. Alors que les paysan achètent le sac à 450 francs, le problème c'est qu'il manque 3, 1, 2, 3 jusqu'à 5 kg par sac. Et là, c'est un manque à gagner pour le paysan. Et en même temps, le problème, c'est que le représentant du sous-préfet, le président de la commission de, distribution, est en même temps chargé par l'opérateur de couler les graines. Là, il y a conflit d'intérêts, manifestement. La même, ah. personne, la même personne ne soit pas chargée, ne soit, <laughs> ne, soit pas en même temps président de la commission et être chargé de vendre les graines. Ce n'est pas possible. Voilà. et aussi, il y a des villages qui ont déjà pris leur semences. Ils l'ont. Bon, c'est le problème. Mais nous, ce que nous voulons, c'est que les sacs soient remplis adéquatement, que les sacs pèsent 50 kg. C'est ce que nous voulons. Et qu'on vous amène une bastule pour le Voilà, très bien. Que tous les sacs pèsent 50, kg. Parce que, parce que nous, on paye 50 euh, fois 450 francs. C'est ce que nous payons. Voilà. Donc nous, on, paye pour, euh, pour le sac, on paye 22 500 francs. Alors que les sacs, ne sont pas adéquatement remplis. Il y manque 2, 3, jusqu'à 6 kilos parfois. Voilà, c'est vraiment c'est ça notre problème. Voilà, merci. saako bi dañ kilo 450 la donc saako bi saako 50 kilos la boo un barigo bi day doon 45000 boo jëlee moitié bi mooy 22500 saako bi boo jël 22500 nga koy jëndee te a 22 500 da lay leer ne li nga jënd matul en tout cas saako yi ñu fi génnee yëpp te peese ko matul waaw matul. qualité bi aussi production 2022 2023 la aussi commission bi aussi wax nañ nañu guerte bi ñu ñu bëgg jox te matul baxul soko ko soo ko nanguwul su engrais dikkee doo am ñun lool jax nañ ñun parce que bëgg la jaay lo nga xam matul parce que ki ñi jaay guerte bi état daf ko fay 1000 et poussière par kilogramme mu dikki fi war ñu jaay guerte bi ci prix 450 francs

c'est-à-dire que les membres de la commission on nous ont ouvertement dit que celui qui celui qui rejette les semences il n'aura pas d'engrais c'est ça ça ça ça c'est quelque chose que nous ne comprenons pas une semence qui n'est pas qualitative et quantitative c'est ce qu'on nous force à à prendre voilà merci. Nous, avons li des naqare mooy dañoo nekk ay baykat ñu dégg gouvernement nous ñu des opérateurs yi gouvernement des daf leen sommes gouvernement bi fi des woon état bu bees bi fi ñëwoon leb ay milliards fay bor yi ñu ne danañ jox baykat yi gerte gu baax léegi nag ñu indil ñu fi gerte goo xam ne ñu ngi ko fi indi woon depuis mois de janvier nii dañ ko fiy dénkaane ñoom nag nee nañ gerte gi réceptionné nañ ko gerte goo xam ne dañ ko fi indi mois depuis mois de juin mois de janvier nan lañ koy réceptionné te indi wuñ biñ koy dugal fii indi wuñu bascule ni dañ koy peese indi wuñ euh, koo xam ne day xool gerte gi ñu ne gerte gi baax na ba mën nañ ko jox baykat yi ñu jox ñu gerte googu baaxul poids bi matul ñun nag léegi buñ fekkee ne ñun état bi moo bëgg a dimbale baykat yi di leen jox jiw ñu nañ ñu jox gerte gu baax poids bu mat baykat yi mën cee gis seen bopp waaye indi gerte goo xam ne dañ ko fee dénkaane dem ba ñu def seen pexe yóbbu seen i këyit ne réceptionné nañ ko te li ma yaakaar ne mooy réception gerte gi mooy ba ba oto bi ñëwee ci buntu magasin bi dañuy indi bascule teg xool indi commission bi ñu xool gerte gi ba gisal ko seen bopp ni gerte gii gu baax la ñu ne léegi mën nañ ko jox baykat yi par jiw ñu xool poids bi mu mat man loolu laa xam ci réception waaye yóbbu seen i këyit rek ni réceptionné nañ ko man xaw ma ko te gerte gi nuñ koy réceptionné te du woon gerte baykat yi opérateur bi moo fi indi euh, euh, dénkaane fi gerteem ñu nga ñu ko joxe ko ne réceptionné nañ ko ñun loolu moo ñu jaaxal léegi daal bu ñu bëggee dimbale état bi bëggee dimbale béykat yi ne leen nañ ñu jox ñun gerte gu baax poids bu mat ñun loolu moo ñu naqare nañu wujal gerte gu baax ak poids bu mat jox ñu ko ah ñun li ñu fas yéene def mooy gerte gi moom ñun duñ ko jël ndax li tax bëgguñu gerte gi boo ne boo ne danga koy jël poids bi matul gerte gi baaxul ñu ne état bi jox na la jiwu yaa ko nangu état bi joxu la jiwu ndax lim la jox baaxul poids bi matul ndax kum kenn kuñ ci jox kenn ku nekk ndax gerte gi par bopp lañ ko joxe ña bopp 8 kilos ci impôt bi ci ci ci ci euh, impôt bi lañ ko dox kenn ku nekk bopp boo fay ñu jox la ko par 8 kilos buñ la ko joxee nag ba pare ne la gerte gi baax na jox nañ la jiw nga ne jox na état bi jox na ma jiw te bi lim la jox matul baaxul ñun loolu loolu moo ñu ci naqare nañu jox lu baax lu mat.